xam bu nekkee dërëm la wala ñaar dërëm la euh, lu jara euh, mbégte la donc euh, lii lu njëkk la xam naa ni ñu ngi liggéey ñu ngi si tànk yi ñu ngi saytu ñu ngi càmbar xoolaat nal fan la ñu jaaraatee ba wàññi yenn yi lii nag jumtuwaayu yi njëkk la nañ ko jàppee nii xoolee ko noonu rafetlu ko même bu nekkee dërëm lañ si wàññi sax wàññi la Euh, yaakaar nañu nag euh, wàññi boobu war nañ ko mën a sentir si kër yi euh, lu ci munti demee nag nañu jàpp ni que dund bi cher na Sénégal dund bu cher la et ñoom bu ñu leen di fal li ñu leen falee mooy nañu jëm a xool nan la ñu jàppalee sénégalais yi ba nga xam ne seen dund dina wàññeeku dëgg-dëgg loolu lañ leen falee